introsé talul introsé bàyyi ma waxal intu teranga ya bari waaw ñëwal li lépp li lépp teranga Modou Mbaye waaw teranga la teranga ya bari modak, modak, may téye micro bi koy téye mais ci lan nga ne sant Serigne Touba sant leen di bëggee maa di bëggee bu baax baax di kontaan ci yéen di leen ñaanal yàlla defal leen info sama sama ya, la sa yëf la ndeysaan mais ñu jëm ci combat Franc ak Sokh dimanche man analyse ngeen ci mën a defal combat bu rëy combat bu neex combat bu métti si ñoom ñaar bu parce que fi ñu toll la ci seen carrière di ko bëre faaw ñoom ñaar kenn ci ñoom dem tey bàyyi keneen ki te ñoom ñaar ñëpp kenn warul dem bàyyi keneen ki dañoo war a dawandoo accéder ci kaw pour mën a mottali ci kaw pour mo mën a mottali ci kaw kon combat lay doon boo xamante ne ni combat bu neex ñoom ñaar ñëpp dinañu bëre fulla dinañu bëre fayda dama koy digal mu bëre ak soox bëre bi nga xamante moom la ñu xam ci moom bëre mbapat waaw waaye mënul mënut a ñàkk non ñu xeex ñoom ñaar ndax ku ci nekk luur nga am devant toi luur nga te luur ngay bëree cela veut il faut ñu xeex pour wàññi poids yi tuuti su ko defee ñu soog a jàppante bu ñu xeex bu ñu xeexul jàppante jàppante bi day yàgg waaye bu fekkente ne dañoo xeex soog a jàppante action yi day mën a gaaw mën a rapide a jóge soq bu ma ko indi woon dama koy digal mu xeex si mu xeex waaw mais du yàgg trop da nga koy xeexloo xeex bu dëggu ba xeex bi sax a dem bëri ak franc ba gis buntu nga dem dugg ñoom ñaar ñëpp ku nekk seeti nga leen gis Tata morom lan nga wax ñoom ñaar ñëpp pare nañu pare nañu combat bi nekkoon suba ñu bëre ko uh-huh. bu combat bi doon suba sox pare na franc pare na uh-huh. ñoom ñaar ñëpp yab nañu leen yab nañ leen ni ñuy yabee mbër bu mag uh-huh. sox yab nañ ko ni ñuy yabee Eumeu Sène franc yab nañ ko ni ñuy yabee Modou Lo te Eumeu Sène ko yab Modou Lo yab franc kon combat guerre dëggal franc moo daan moo daan ngeer te ñooñu ay magu soq lañu soq war koo faj muy combat boo xam combat bu neex lay doon ci ñoom ñaar waaw combat bu am solo. Seydou Lo laa bëgg nga rapporté ko waa Pikine nag lay seetaat waa Passe nag lay seetaat mais naka laa koy léewtoo Seydou Lo rek ma dégg naka laa koy léewtoo waaw mbokk yi mbokk yi Franc ak soq ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Franc moo nekk à gauche soq moo nekk à droite bu dee noonu lay demee arbitre bi sifflé na.